ngor gi manam gouvernement Sénégal jël nako ci jaar lako ci ministère de la santé ak ay structure ñu man ko euh a waccio ak mom ci niñ ko waxee loolu moy ndigul sëriñ bi ya fas yene it dalalako euh, ci askan ba kep kuy ñëw